di leen wax ni que wérgu yaram neexul waaye euh, yal na leen yàlla saafaraal ci seen jàngoro yi ba ngeen mën a delluwaat ci njaboot ji sans compte sans oublier ñi nga aussi ñi nga xamante ni vraiment mooy euh, ñi nekk ci prison yi ah, nga xam ne ñoom dañuy seetaan di ñu bégee maa ngi leen di nuyu di leen jox loxo di leen ñaanal vraiment yàlla génnee leen fi ngeen nekk surtout waa camp pénal camp pénal xale jigéen yi fa nekk samay xarit lañ jox nuyoo bi ki nga xamante ni mooy madame Senghor vraiment ñu nekk ay nit yu baax su ma fay dem dañ may dalal donc maa ngi leen di nuyu bu baax a baax bu ma jógee foofu rek xam ngeen ni damay daal di dem ba Gambia nuyu suñu mbokk Gambien yi nekk foofu di leen wax euh, good morning ah good morning to muy Gambian people ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a ah, di leen bëggee di leen wax ni que ni ngeen bëggee Sénégal ñun noonu lañ leen bëggee wala nu ko raw sax jóge foofu aussi daal di dem ba fi nga xamante ni mooy Europe diaspora bi di leen nuyu vraiment di leen nuyu yéen ñëpp fu ma lim jum Paris hmm. ah Genève Suisse États-Unis Canada ñoom ñëpp ñu ngi ñuy seetaan ñu ngi leen di béggee Italie ah, ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee parce que ku ci mel ni euh, Balaay sama benn xarit bu nekk Italie euh, dafay béggee émission Weekend Start bu baax a baax donc maa ngi koy nuyu aussi ah, di nuyu ñëpp vraiment di leen jox loxo waaye duma ma fàtte benn yoon ñii toog fii nga xamante ni mooy biir cosaan maa ngi leen di nuyu encore une fois di leen euh, wax ni nga ngeen welcome back ci seen émission ah, ñëwati nañ avec la team chaque samedi et tout gis ngeen tardé moo waral lii Pape Samb xoolal lii tardé moo waral ba ma bàyyi message bi en attendant je range mes affaires xaaral ma jox nuyoo bi euh, les dames les dames petite nuyu naa la. <laughs> non fay naa la grande sœur sax seeti ah. di nuyu képp ki ma bokkal plateau di nuyu sama góor yi baax yi ah. <laughs> également noonu laay def di nuyu waale chers amis téléspectateurs Euh, TFM di leen euh, gërëm ci taylu bi tardewul de garaawal moom lu mu def baax na te xam nga dafa tardé ñëw ngeen gis ko mu gën a euh, tàqal plateau bi gën a plié macha allah donc noonu la kon ci kanam incha allah muy ni la dara ci table bi. amul benn problème petite sœur waaye en tout cas belli nga chaque samedi nga daal di sañse waaye bu weesoo loolu aussi nga daal di daagu seeti partenaires yi échanger ak ñoom. daal di ñu koy indil loolu aussi ci kanam tuuti dinañ ci ñëwaat. ma jógee foofu damay daal di xool kilifa kër gi rek ki nga xamante ni mooy marié célibataire moom vraiment amul benn njëriñ non célibataire amul njëriñ yow yow kii bàyyi ma nuyu la rek ba pare xoola da nga da nga xaw a vert ma vert bi tu vois sama xol day gisee sama jigéen nuyu naa la vraiment merci merci beaucoup Samira euh, mesdames et messieurs euh, bonjour à tout le monde bonjour aux enfants bonjour aux jeunes Euh, bonjour aux adultes, bonjour à tous les chrétiens catholiques qui nous suivent, bonjour à tous nos frères et sœurs musulmans qui nous suivent, parce que Weekend Star est suivi par tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de religion. Donc, où que vous soyez, qui que vous soyez, on vous dit respect total. Soyez les bienvenus dans Weekend Star. exactement mi ngi noonu puis euh, nuyoo bi nag damay daal di virer ba ci ki nga xamante ne mooy DJ di mixé en vraiment mooy le DJ euh, du peuple man loolu laay wax sax parce que bu mixé xool day sedd daal man dama ko bëgg vraiment il se nomme tout simplement ji. ci daw mixé nuyoo waale affaire yooyu. est ce que du ma la mixé sax nga woon gars yi 5 7 yoo xam ne. affaire waaye gars yi fàtte bi fàtte bi fàtte bi. Fanta Samira tey da ko fàtte. jël fàtte bi fàtte bi. jël Fanta. jël fàtte bi. fàtte baa ngi. c'est bien fàtte bi c'est par Fanta. wane fàtte bi tos. fàtte baa ngi fàtte baa ngi. buy mu de. ko bëgg de <laughs> Voilà donc c'est avec ce joli morceau bien sûr euh, de la diva euh, Adiouza moi je vous dis bonjour à vous tous ah Adiouza new look uh, new album nee naa leen ay exclusivité laa leen indil ay son yu bees tàkk ay clip yu bees tàkk gis nañ sànq euh, yaa ngi naan da nga tardé non tardé woon parce que ñun ñoo doon foo si clip yu bees yi amoo dañ si bëri leen ah, gis nañ ngaa ngaa ko blendé bu bees bi gis nañ euh, ab Guité Seck boo xamante ne maa ngi pa di ko enjoy nice donc aujourd'hui plein de nouveautés mm-hmm. yoo xamante ne dañ ko indil euh, sénégalais et pas mal d' artistes yoo xamante ne génne nañ ay it yoo xamante ne dañ leen invité tey pour ñu partager émission bi ak ñun quoi. Mm. voilà on aura des de marque et de renommée. normal parce que c'est Weekend Stars ah naa leen Weekend Stars ndaanaan bu nekk dina fi jaar doxantu fi wax ñu li nga xamante ni moom la ay projet waaye aussi li nga xamante ni moom la génnee euh, émission Weekend Stars yéen la fi nekkal waaye aussi am na loo xamante ne ci kër gi la nekk ci Weekend Stars mooy ki nga xamante ne day topp kaa du bàyyi dara dara dara mu jàll. xam naa ni làmb ji sax du ñàkk dinañ ko waxtaanee. waaw waaw dañ koy waxtaanee rek. koy waxtaanee il ah maa ngi lay euh, fay di kontaan bu baax a baax di teew ci émission bu mag bi di Weekend Stars tous les week-ends euh, ça comme ça ñu ngi nuyu ñëpp ñu toog dañ seetaan surtout fi ma jógee muy waa jàmm gën Kër Massar à travers la TFM tamit ñu ngi nuyu le monde entier fu waaye toog dañu seetaan rek na yeewu teg ndékkeem ràcc jàkkaarloog télévision am ñu ànd ak PNG Samira my sister ñu jëngal ko gësal ko supa am ah, eh, c'est my sister laa koy woowee ah mais quand c'est important c'est avec tata Adja Vessel exactement regardez-moi ces Vessel là exactement mais regardez-moi ces genres de barada c'est beau ah, qui qui qui qui ressemble à un barada alors que c'est pas du barada eh, c'est du kaaf mais booy lii lii lii lan la booy ñun ba ñu nekk xale ba léegi dañuy dégg ñu naan barada ak kaaf foo déggee da ngay dégg ñu naan barada ak kaaf mais maa ngi gis barada buñ jëpp def ko kaaf dëgg la balaa muy ñëw da koy ànd ak 300. day ànd ak lépp lay àndal est-ce que dafa xaj sama gàll yi boobu ñëwee dama koy toj. <laughs> buy ñëw ma koy toj. yow Kaasane de gën. jàmm gën Kër Massar tout le fu waay toog di seetaan xaw ma bu ñëwee rek. dëgg la nekk di békk euh, euh, am nañ ay invité de marque. Mm-hmm. des invités yoo xamante ni c'est avec plaisir. Mm. lu ma neex trop suñu ko temps bi permettre mooy euh, li nga yàq Samba Peuzzi keroog ci li nga xamante ne mooy Abba Show bi xam naa suñu temps bi permettre di nga ñu may benn prestation loolu daf maa daaj. <laughs> waaw daaj na ma nag. Ah waaw yee kii dinañu ko may si kanam damaa rëy ba mënatuma me tient pas chaud. C'est ce que Non, j'ai imité Sam Cozy, il fait. C'est chaud parce que Sam, on a l'impression que moom buy rap lay tëdd. comme moom bëggatu di soog a yow di yo. Oh, mais c'est normal doomu jàmm gën. damay foo yow defal rek nga xool defal rek nga xool tos lim la <laughs> nga wax ñu Samba Peuzzi naka la ko defee. ay ay waay ay ay nit ay nekk public bi nekk fi. demal nga def ko Mr Cash di ñëw demal. <laughs> demal. yaa dàqaraat demal. ci yow. dafa leer. avancé ko ba ci deuxième couple bi. <laughs> ay ca clip. boo amee clip bu Pape Samba amee clip bi rek muy jàllale ñu wane waale Toch vraiment li muy def fii. deuxième couple bi. Samba si possible. This. The life for our life. And the life for our life. Dale preso. The life for our life. Jalan, sandaga, re, re, re. bi sax man léegi rab dem safatul sax mi de tout li ma a defee ci Paris rek mënu ma nga jël extrait avancé bi nii nga teg ko ma walla quoi Samba c'est comme l'impression que ni day tëdd moom day doog a yeewu rek gars yi xëccal ko micro bi tegal ko rek bu bu rab quoi ak nu mu ko sentiree quoi na ba pare naan damay foo raw leen quoi man loolu daf man man man dafa koy xool. au Sénégal man euh, je l'ai dit ah loolu wax naa ko ñu bari man Ngaka Blindé mooy sama rapport. d'accord kon fan la Akhlou Brick. Akhlou Brick non Akhlou Brick je les aime beaucoup parce que samay mbokku taalibe lañ quoi ñoom xam nga ay taalibe bàyyi lañ. chaque année dañuy bégal ci gàmmu gi et man ñëpp laa bëgg man defal lu neex rek man topp mais man ngaa ko fi une longue histoire depuis 2013. ok bi muy gagné flow up bi samay grand frère la gagné et c'était man bokk ma ci artistes yooyu di làqatu non man ñëpp ok. Liss Ndour sama waykat. congratulations on l'applaudit. Ah, ak kan mooy sama mbër Siteu. Siteu mooy waaye de euh, Dof Ndeye moom loo ko mënti waxit ah. lu baax rek nga ko mënti wax wax dëgg fa lu baax la ak xamal. nit ku baax la. mosu ñu ko dégg ñu ne bon. dëgg la tey normalement war na mën a nekk imam fële ca Grand Yoff parce que baax la ñoom social la ngay dox. dëgg la dëgg la de waaye aussi ñi ngi nuyu ñi nga xamante ni ñi ngi nekk si Facebook bi euh, safoo li nga xamante ni mooy Weekend Stars ndax nee naa leen émission bi dafa yaatu ku nekk xaj na ci waaye duma ma benn yoon sama yaay Adja Vessel maa ngi jégalu yaay booy bu baax a baax a baax xam nga ni tardé rek moo waral ni ñëw ma def la câlin waaye ajaa Vessel moom am na fi ay fans am na fi li nga xamante ni mooy ay waaw fans am na ñu koy bëgg eh, gis nga loolu yaay yaay ok kon ku soxla carte membre. ku soxla carte membre seeru na seeru na. day ñëw ci tas bu ko defee rek eh, mu daal di am li nga xamante ni mooy carte membre Adja Wessel waaye suñu yaay ji moom nee naa leen eh, chaque matin chaque samedi matin sax daf ñuy taajal li nga xamante ni mooy ay vaisselle yu amul fenn xoolal lii li nga xamante ni Toch nee na baraada la. man je ne sais pas ce que c'est. ba ñu nekk xale dañu daan dégg ñu naan ñu baraada ak kaas. mais pour la fois. ngay gis baraana kaas ànd def benn affaire. Adja Wessel moo ko mën <laughs> kenn du moom lii ay design la waaye xanaa gisoo lii toch. mais lii lii lii maanaam. ba pare xoolal dafa reflété ci sa yére bi nag. dégg loolu. jël mhm. pour lan la café wala. lii moom suukar téye bi la def ci. en foofu def fii mu def ci riz bi. oh nga si def meew waaye yow doo naan café mun nga def def ko meew. ah du naan café. waaw ñu laal excitant du naan café ataaya eh, kaani. benn excitant rek la euh, vraiment euh, nekk suñu yaay di ñu accompagner chaque samedi matin euh, ñun ak suñuy invité donc vraiment yaay boobu maa ngi lay remercier ku soxla ci vaisselle yi comme je l'ai dit mën ngeen ko woo ci 77. 723 32 32 mi ngi nekk jëppal Derklé 77 723 32 32 ngeen daal di am ci vaisselle yu yànj yi mu daal di leen di teral donc euh, waaye aussi euh, pii du ñu fàtte suñu partenaire bi nga xamante ni moo ñuy gunge à chaque fois. ndax euh, Yellow Vet yéen koy bëgg a miin. Mm-hmm. je crois. man de miin naa shampoing shampoing wala wala wala wala wala lotion bi lotion la. bi lotion la. shampoing amu fi. taxawul kaay kaay kaay kaay fii kaay. kaay kaay kaay moon la. waa kaay kaay kaay. je t'explique. par exemple bu ko jëndalee Eva. lii mooy gel douche bi. voilà Eva bii lay sangoo. bii <laughs> crème hydratant la. bu sangoo ba pare bii lay diwoo. waaye bu bëggee tamit bu fekkee day génn dem plage wala piscine affaire yooyu mu bëgg diw xam nga lii xaj na ci saak. waaw mi ngi noonu lii nag lotion la. lotion mooy moom lay nettoyer yaram bi kanam geeg tâche fu mu am et tout ça moom la koy nettoyer yaa ngi dégg. waaw non non pas démaquillant boo demee ba démaquillé wu ba pare guddi gi moom lay def. kooku huile de massage yooyu. non man man dama utiliser ci leneen. huile de massage. lii. ko neexee na ko def ci crème bi su ko neexee aussi ak coton. kon mën naa jënd ah, a jënd. ok kooku mooy euh, yellow vest mën ngeen ko am vraiment ci fépp ngeen mën ci dem parce que nee leen Kera cosmétique moo leen ko indil euh, dañuy daal di doxantu rek ah Pape Samba su baaxee ñu daal di doxantu xool li nga xamante ne Choupa indil nañu ko parce que kër gi moom nee naa la euh, dafa yaatu lépp lu waay indi rek incha allah dañu lañ koy jaayal mu dar ci day jar force la loolu. day jar léegi loolu moo tax nag waa Kàngam business ñëw kontaan parce que keroog ba mu fi jaaree daanaka li ñu amoon ci bagage lépp dafa jeex. waaw Kàngam business moo ñëwaat. xolam sedd du dëgg. loolu laal mu jeex waaw waaw <laughs> loolu laal mu jeex waa daa mel ni émission bi la yéen la euh, macha allah seen làmmiñ dafa am barke. donc noonu la ñuy def ma ànd ak waa régie dem jëli élément bi ñëwaat fii ci plateau bi. ayca Pape

yow xam ni mënul dara avant gi ba fukki mer gat fajul dara takkale or ba ci 24 kara dañ leen di bàyyi përëm lu ñoom ñuy dëkkee aya baby I just want real love real love I just want love real love def it net bi I don't want lie la fayaat ñu ngi lay delluwaat fay bu baax waaye yaakaar naa li nga wax looloo ci am tey boo xoolee boutique bi ni mu mel ak bee passé ni nga fi ñëwoon nga xam ne am na changement ndax nag dañoo am arrivage yu bees yoo xam te ne tubaarikàlla dafa yegg ndax bee passé bi ñu duggee fa ñu war a dugg jaar fa ñu war a jaar bi ñu gars yi songee tubaarikàlla xam nañ ne li ñu leen waxoon lépp moo nekk ci boutique bi ndax nee naa la ko bëgg lu baax bëgg bisu lu baax fii ngay ñëw te weddi gis bokk ci yaakaar naa bi ñu ko waxee bi gars yi ñëwaatee gis nañu looloo tax mu jeex ñu dawaat ñëw andiwaat ay yu bees tàq tubaari tubaarikàlla dama lay bàyyi rek nga sànni sa bët ba fu may am xool waaw la gis nga ko de yii dafa nekk ay càq yoo xam te ne tubaarikàlla da gis suñu yaay yi di ko sol da gis grande dame yi di ko soxaar sax su ma la booleelee lépp tubaarikàlla bu ma la ko defalee nii man mii góor rek tubaarikàlla da ngay xam ne li rafet na tubaarikàlla xam nga lii du pour man waaye tubaarikàlla ci baat lay tagu bu tegoo ci baat rek tubaarikàlla ba wàcc nga boole koog sañse nga xam ne lii nii nii nii rek la mën a demee tubaarikàlla. yu rafet yu raar. Mhm. yëpp ay kii la ay motifs yu bees la. motifs yu bees la ah, yu bees yi. arrivage yu bees gis nga ko nii mi ngi nii tubaarikàlla xam nga ne lii tubaarikàlla ci baatu jeeg bu mu tegu rek tubaari tubaarikàlla loo waxati ñu dégg la foo dem ñu xool la boo yegg si ñu seen la ñu xam ne yaa ngi nii di ñëw ndax nag nee naa la jigéen daa war a am ay takkaay tubaari kàlla moor te yéen jeeg dañ leen war a fay nga yaakaar jeeg ji duñ leen delloo njukkal bu wax ji bëri bari bëri ba ngeen fàtte ne kàngam business international la. cargo bi tubaari kàlla nee naa la ñoom ñooy jëli bagage ci bitim réew fu mu nekk ñu dem lokkati la ko andil la ko tubaari kàlla ñoom fu bagage nekk ci biir bitim réew dañuy dem ñëw andil la ko su xam nga ne lii tubaari kàlla RMS yi xam nga ne tubaari kàlla lii jekk na ci e, poignée Samira bi jekk ci sa poignée yu tubaari kàlla yii moom xam naa ne ci plateau bi war ngeen koo sol nag war ngeen koo sol tubaari kàlla ndax nii moo faw mu jox leen noonu yóbbaale ci. Euh, numéro téléphone 77 339 89 73 339 89 73. boo ñëwee ba marché HLM ci pharmacie Léopold Sédar Senghor rek boo ñëwee ba danañ génn jënd incha allah. ayca mi na euh, doxantu ci ki nga xamante ndax nee naa leen vraiment dañ ko defaloon première fois mu daal di ci certainement gis nga xamante ne mooy euh, bénéfice mu daal di ñëwaat rek wane bagage bu baax yi mu te moom sax ba mu ñëwee dafa ñëwaale ak doole parce que nee na ma lii yóbbaaleel moo ko Samira déedéet oh oh, ay yow man ay bijoux yu baax oh, teg si tamit cargo bi non non non cargo bi <laughs> waaw boo neexee nga daaj ko ndox mu rafet la. ñun bokkuñu si xale góor yi bokkuñu. sami daajil. sami daajil ñu ko. ay sami daajil ñu ko. oh la la ana Ibou. Ibou. man de Ibou rek laa jàpp. Oh, c'est magnifique ça. petit zoom. zoom zoom. merci beaucoup Karol merci merci. Oh. Euh, ah Samira tu le mérites ah. vraiment tu le la tu fais la fierté des animatrices du Sénégal d'Afrique du monde entier. loolu am na allah macha allah. na moo taxit kàngam nee na cargo bi ñu insister ci loolu mhm. ndax xale yëpp dematuñu fenn waruñu kenn kàngam business rek la ñuy topp mhm. ndax képp ku bëgg sa bagage gaaw peut être six trois jours kàngam moo ko am ci réew mi mhm. donc damay bàyyi torche nga sampaat ci say tànk rek barke alxuraan <laughs> foofu laa suñ sama sa waa ji foofu laa suñ sama tànk kooku mooy kàngam business group comme ni nga ko waxee rek Fred bi mu ngi Chine mais kam dara bëri na ay ndaanaan yoo xamante ni ñu ngi fii Sénégal bu ñu soloo nga signé di sol des yére de marque bisu montre lépp loo xalaat te muy accessoire nga yaakaar ni fu ne lañ koy jëndee fekk nag kàngam business group moo nekk ci ginnaaw li ma lay wax nii dama ko maîtriser parce que dama ko xam di nuyu gars yi fa nekk yëpp ñoom Pape Malick ak staff beeg ñëpp ñu ngi def liggéey bu ama ama ama am solo parce que ñun Sénégal dañ fiy nekk mais parfois dañuy gis ay bagages yoo xamante ni dañ koy soxla ci tàng tàng bi parce que parfois da ngay soxla benn affaire léegi-léegi nga bëgg cee jot léegi-léegi ngay commandé ñu naan la ay 2 mois wala ay 3 mois non kàngam business group 2 bu baree ba bari 3 jours wala 6 jours nga jot sa bagage te lépp loo xamante ni jot nga ko doo ko rëccu parce que da ngay jot qualité ak marque à prix imbattables prix yu moins cher yoo xamante ni ndimbal jaboon la daal je peux dire te lépp lu soxla am na fa lépp loo soxla am na fa. voilà lunette accessoire yéex a marque qualité. moom xam naa moom. man tabaski ñoom ñoo ma jaaxal bi paa nag dinaa ne ko kon góor ñi. góor ñi lay teel ba pare mu dolliwaat sangira ndax jar na ko. léegi lii mooy euh, diagramme yi ñu doon expliqué. waaw diagramme mais xam nga ni lii amul différence man je amul benn différence ak yi nga xamante ne mooy or. waaw amul benn différence. Mm-hmm. lii nii balaa koo xam sax nga takk ko. xoolal samedi bii di ñëw wax leen ko mu takk ko. Hmm, day takk di melax. dama koy takk. ku ma laaj ma ne la or la. Ah, lu ci waay mën lu ci waay mën. Eh, Fred baa ngi noonu di dugg. Fred baa ngi noonu di dugg. waaw Fred baa ngi noonu di dugg tey boo xoolee chinois yi tamit macha allah ñu ngi def liggéey bu am solo Chine ndax ñoom bàyyiwuñu dara tëdduñu nelaw xam nga ñu ngi liggéey ñu ngi ñu ngi defar seen réew. te loolu moo fi am solo ay doomu réewu Sénégal dem ba Chine di liggéeyloo loo yi. waaw ça me fait ñoom ñoo yëkkati di teg chinois yi lay employé <laughs> ñu ni moom lii laa gëm parce que alxuraanu kër bilaay moo tax numéro baa ngi noonu ku ci bëgg lu rafet ku ci bëgg lu baax waaye ku ci bëgg sa cargo gaaw jaratul ngay jaaxle 77 339 89 73 la 77 339 89 73 numéro bu baax baa ngi noonu boo wootee di nga jot moor Dia mu indiqué la boo soxlaa numéro kàngam Mor dina la ko jox directement yéex ra yéex ñàkk rombati la ci waaye nee naa la ku ci bëgg nag sa produit da ngay ñëw ci émission bu baax bi émission bu karaaw bi xale yaa ngi nii doy waa Samira ah hmm. xam nga Samira rek toog présenté la sa produit loolu dafa neex toog ñëw sànni ci PNG la liggéey voilà tey loolu laa leen indi loon ci table bi léegi man xam nga lu may def damay dem seeti kàngam business hmm. mu jox ma lu mel nii voilà hmm. di koy jox sama jabar Eva loolu loolu man maa ko ah. damay Eh, ah, dañu waxante dëgg dafa neex te yaay sama man loo def dama ciy sob nag boobaa ma teg ci ay montre quartier yu baax ndax kàngam am ko ah yëpp kàngam moo ma xam nga euh, ñu takk jabar vraiment dañ ko mérité parce que xam nga ñi ni mooy kàngam business Eva nag man maa la promettre que dinaa ñëw indil la chaîne takkal la ko vraiment parce que jabar bu baax nga. te gis naa ni ngay épauler sa jëkkër vraiment. Mm-hmm. Euh, waaye tamit. mais xoolal ba Samba woon ma différence kii ak kii. waaw y' a une grande différence Pape Samba defal ma loolu. Euh, marié ak célibataire y' a une grande différence ah. alors xoolal nekk ma fa. waaw gars yi si yéen ah. mais loolu su weesoo dañu bëri ay invité. waaw bu woon naa ñu jàll si tuuti. waaw waaw mais ah. balaa ñu ciy jàll dama bëgg ñu xuus tuuti rek. ci li nga xamante ni mooy am suba euh, muy làmb ju mag a mag a toch xam naa ne yor nga ci ay dossier yor nga ci lu rafet diggante Modou Lo rek c'est grand rendez-vous ah. man euh, décortiqué naa làmb ji parce que ku ci nekk wax naa la ni muy bëri dëgg la Ama Baldé mbër la moo xamante ni bu albine siif moo ngi sa kaw bëreetu Ama Baldé trois minutes yu Ama Baldé loolu mbër bu ko attanul pour résister ko dalay daan ni bi bikkiñ mais Modou Lo nekk nit koo xamante ni ku saay-saay la ku naqaree bëre la saay-saay la goo xamante ni tey jii nii nga jëkk ko taxul nga daan Modou Lo benn action daanu ko dafa laaj ay enseignement laaj coffre ak vivacité day bëre day xeex. mais dama lay wax suba làmb ji kii daan. Ah, noté ah, ah da nga ko xam noté attention on est le 4. yi noté on est le 4 diggante Amadou Balde. ak Doudou seen tur dëgg laa lay wax. Amadou Balde ah. non man dama lay wax. ni nga may gisee nii. yow mën nga ma xool di ma xeeb mais Macky Sall li mu añee nii mun naa la ko. waaw waxal rek yow waxal rek yow waxal rek ak Doudou seen tur dëgg la. suba bu amul match nul. je te ah. daan. tur bi duu la jeexee. du ah kii Amadou. billaahi man li ma lay wax dama ko maîtriser. non Amadou am na du du. du am na du. donc kii daan. waaw tur bi du lay jeexee. bu doon doyul comme indice ma joxaat la beneen indice. waaw joxaat ma bu leer sant bi am na el. tos gis nga xool duñ fa morom waaye. xanaa maa garaaw L. am na ci sant mais c'est ça saa yi parcelle wala Pikine. ah kon yéen bëggoon nañu déglu leen parcelle wala Pikine très bien. waaw léegi yeggal parcelle wala Pikine. amoo fi kii daan. Pikine léegi am na tur FM. dëkk bi mu dëkk. tur bi P la commencé. parcelle wala Pikine. ñoom ñaa ngi P la. ah yéen nag xanaa du ngeen dégg. waaw tos. non parcelle wala Pikine xam laa leen di wax nii. PP parcelle Pikine kii daan turam du lay jeexee. sant bi L la am sant bi am na L. Mhm. dëkk bi mu dëkk P la commencé. Pikine parcelle. man dama sonn ci torche yi nga ñëw wax s'il te ci waxu lu leer rek. xam-xam comme nee nga xam-xam nga am. vaar de kii daan saa amul xam na léegi. kii xam-xamam. waaw léegi yow comme amoo xam-xam. kii daan day ngemb. <laughs> léegi téléspectateurs yi. wala waa arbitre bi waaj a sifflé di ko gis mu xëppoo benn butéel. man maa la wax lii daal Fatou Samira. ñu wax ñu Samira man bëggoon naa xam seetaan nag émission bi. su fekkee PDG mu ñuy seetaan monsieur Youssou Ndour ak Ama Balde. man xam naa ne Youssou Ndour ku mu wax ne mooy daan rek kooku nar a daan. dëgg la voilà. il connaît la réponse. vision moom moo ko am. kon papa Youssou wax ñu euh, kan mooy daan ci diggante Ama Balde ak ki nga xamante ni mooy jox ñu li nga xamante ni euh, mooy euh, su ko defee nag Weekend dañuy dalal ay ndaanaan chaque fois ah ouais on euh, tey dinañ am ñaari demoiselles ñaari dames ñaari dames nommé kenn ki Thiès la nar a jógee elle en cours de route Diarra dafa génnee lu bees tàkk démb la génn donc dina fi ñëw si kanam ah, ah, Diarra voilà c'est ah Virginie Cathy de Virginie merci il y a Mr Cash bi nga xamante ne moo ngi waajal le 23 décembre dañ ma Arena. maa gis ma maa Emota di def moom tamit euh, dina teew monsieur Kees parce que la jógee na waaw from pied. from pied moom tamit euh, dina teew. Mhm. yoo xam aussi euh, Jules. nga xamante ne mooy waajal benn événement bu ngan. Jules Diop Jules Diop mooy waajal benn événement bu ngan moom tamit dina fi teew si kanam. Mhm. yaa aussi. la queen. Mir Mir. Mirma d'ailleurs Mirma la ñuy accueillir comme ça mu nuyu sénégalais. mais Gilles balaa ñuy accueillir Mirma bi nga doon may hymne national xale yi Oh. xale yeewu nañ bu yàgg di xaar xale yeewu nañ bu yàgg di xaar puis est-ce que doo ñu may loolu Pape Samba est-ce may loolu tamit ah, déjà s'il parce que les enfants ils nous regardent chaque matin chaque samedi matin dañuy soxla seen dose. ñun la ñun xale merci beaucoup Pape Samba alors loolu nag euh, dañ koy may euh, xale yi nga xamante ne chaque samedi matin nee naa leen ñi nga xamante ne ñoo dàkk dem crèche euh, du ñu yeewu semaine bi mais week-end bi dañuy teel a yeewu ànd ak énergie donc may nañ leen son bi ma nièce dama koy commencer ci moom binu moom nag c'est une petite peste malheureusement ay bêtises rek lay def mais je te fais coucou aussi. moi je l'offre à mon bébé bébé Grace. waaw ko koy doomu Carole. alors je l'offre aussi à Kenza qui a fêté son anniversaire dans la semaine Kenza. Euh, mention spéciale à toi, joyeux anniversaire. Je l'offre aussi à la fille de notre euh, euh Eva qui est là. Mm -hmm. Eva bi nga xamante ne mooy gérer téléphone yi ak xaalis ah, yi. donc ça qui s'appelle Marie Karina. Mm -hmm. donc je l'offre aussi à Marie Karina. je l'offre à Isabella qui fête son anniversaire. Mm -hmm. à Madame Nian, prof français qui fête son anniversaire ainsi que tous les natifs. Et du mois de novembre. Et depuis la France euh, avec sa fille. Jojo oui oui oui Jojo en de nous regarder moom nee na doomam dafa bëgg Coco Lay Lay. ndeysaan ndeysaan Jojo waaye basketteur bi waaw koo koy may nag xale yi bëgg nañ ko de maa ngi koy may. sama ñaari bébé yi Rama et Antalaay mes may naa leen ko. maa ngi koy may maa ngi koy may ki nga xamante ni mooy Mouhamed ak Yacine di doomu Pape Samba waaye aussi Fatima di doomu ki nga xamante ni mooy madame Sakho Khadija Dafe ndax xale yi nag dañoo soxla. week-end daal les enfants de Khadija oui. macha allah may sama turandoo ah Moustapha ah, di ko may euh, bébé Mouhamed. am nga turandoo toj. am nga turandoo gu si. man may kilifa. ayca mu ngi noonu may on enchaîne avec euh, Mirma Mbégte. dans le Kër Sa. waaw bu ñëwee ñu waxtaanee Mbégte. Mirma ayca. Thank you. réussi macha allah mais bëggoon nañ xam balaa ñuy ñëw si clip bi son yi et si si lan la nekkoon soxna si. <laughs> ça faisait longtemps. ah oui gis euh, Mirma. si télé bi si rajo bi nga jógee de wala mel <laughs> si si si lan la nekkoon euh, ba ñu gëj ko gis si écran bi. ba ñu gëj ko déglu si rajo bi. gëj ko gis ci ay prestations concert soirée ou dîner de gala. waaw ça c'est vrai c'est vrai que xaw naa am tuuti absence ci musical bi. Mhm. donc waaw euh, c'est euh, dama nekkul woon nag Sénégal. Euh, xawoon naa voyagé nekk en Europe ma xaw fa yàgg def naa fa ay 5 ans rek laa fa def. Ah, waaw mais quand même 5 ans. Ah, <laughs> waaw j'étais mariée. Ah, mais j'étais mariée bon divorcée pour. fëgg leen seen nopp pour ñi nga xamante dañoo nekk. Ah, kon gars yi bu nañ dundee yaakaar instant yi gars yi mën nañ dundee yaakaar quoi gars yi. déedéet bu dundee gum yaakaar parce que paree ko. <laughs> da ngay noppaleku ba si kanam da ngay noppaleku ba si kanam. loolu neex naa dégg. tu es revenu en force au Sénégal pare bien sûr. Euh, pour wan ne Sénégalais yi tu es de retour. Yeah. mais comment elle est de retour tu es venu ouais. avec un projet wala avec un single wala avec quoi tu es tu es revenu. waaw ouais, je suis venu euh, directement dama engagé single. donc ma ko ànd ak ak waa Rock Team ñu job sa brain donc moom laa def collaboration donc morceau yi di wa war a génn yëpp ñoom laa ko liggéeyal donc instant bi dañoo miser si single yi pour euh, ne amaat tuuti présence parce que sama absence aussi dafa yàgg donc euh, Fall il faut ñu tegle tuuti single yi waaw bu xaw a nekk album prévu pour l'instant bien sûr ah, album lay doon album lay doon mais pour l'instant mënuma tëb rek euh, génnee album donc il faut ma tegle au moins quatre singles yoo xamante ne di nga nekkaat euh, ci ci affaire bi à cent pour cent nga bëgg a nga daal di indi li nga xamante ni mooy mbégte vraiment clip bi boo ko gisee am na qualité am na li nga xamante ni mooy cas ak feeling <laughs> ah mille mois ñu namoon ko mu daal di xoolal image yi macha allah c'est bien coloré kan def clip bi. Mbaye Phoenix moo ko def waaye mu ñu nekk sama frère yu ma bëgg. parce que bii moo nekk sama troisième vidéo yoo xamante ne moom moo ko def. Mhm. muy mbay donc vraiment mu koy remercier bu baax ndax dama ñëw aussi moom tamit mu jàpp si bu baax. ñëw ne du ma la laaj dara loo ma jox rek man ma tourné la donc kooku mënoo ko fay. c'est des gens yoo xamante ni euh, ils sont là pour vraiment te te booster pour t'aider. et je le remercie wallaahi. sama premier vidéo bu mu njëkk def. mën naa ne defuma si dara. Mhm. lépp moom moo ko def rien rek pour euh, pour jàpp si combat bi. donc ba tey yàlla def may am dara di ko jox. Ah. mooy defaral vidéo. donc sant yàlla. bu baax la macha allah mooy la voilà da gëj a gisante bi ak gëj a dégg ki nga xamante ni Mirma ñu gis la ci beneen facette ah. Mirma nekk ci biir série mais Mirma da nga yow da nga neex. da nga ne yow da nga ludique yow da nga da nga xorom. ni mu mënee ci waaye noonu la mënee ci série. cœur brisé cœur brisé. cœur brisé voilà moom la da ngeen ak am solo waaw dañ ma métamorphosé. voilà exactement waaw damaa ñëw pour que sakkal ma perruque. qu'est-ce qui a fait de Mirma chanteuse à l'actrice. est-ce que méttiwul aussi waaw est-ce que méttiwul. non du tout pourtant man yàqaluma dara parce que tournage yi da ngay mën nga toog une semaine deux semaines sax doo tourner mhm. donc méttiwul yow xam nga ci dara donc voilà yàqalu la dara yàqalu ma dara mhm. dama dama gis mës a bëgg cinéma yàlla def ñoom tamit dañ may gis rek jël ma comme mais da nga soo nee Samira moo ngi ci tamit euh, parce que gis naa oto bu mu gaare Samira <laughs> mais est-ce que yéen a ah, waaw ma ah, macha allah Even moom wax dëgg fa yàlla ah, may liggéey ak ñoom dëgg fa yàlla mosuma am ak ñoom problème xaalis déjà cœur brisé bi bi ñu koy def ñu ma ñu ma woo en tant que waykat en même temps en tant que actrice ma def bande be bande annonce bi man maa def ba moom waa bo bo bi man maa ko def donc maa ko way Euh, ñu ñu am confiance en moi jël ma ci lool en même temps ma nekk ci actrice donc ba leen ci remercier aussi parce que ak euh, je ne suis pas une grande actrice mais quand même ñu ngi may woo ci seeni projet loolu rek ça fait plaisir <laughs> macha allah am na talent euh, damay pëtaxlu foofu ah ñu daal di remercier ndoo waa Event Prod parce que man tey bu ma sénégalais yi ràññeewee c'est grâce à Event Prod Ibou Gueye ma koy remercier waaye Papa Thier aussi ak équipe technique bi foog ñu remercier leen parce que am na travail xamante ne dañ koy def ci yow avant ak Samira après lu bëri ñoom ñoo koy def seen maay donc maa ngi leen di remercier monteurs yi ñoom Jean ñoom ñëpp ñoom Kapo ñoom Badou macha allah eh, ñoom Baytiir ñoom ñëpp ñu ngi leen Tafa mi nga xam moo ñu Tafa waay Tafa ñu ngi leen di remercier mhm. vraiment vous êtes Et puis j'ai fait ma saison là mooy deuxième. ah première saison. ok je crois oui. Mhm. Euh, gisee euh, sa liggéey dafa mel ni rek yow yow son yi ngay def euh, yow yaa koy composer sa bopp. non non euh, avant oui avant oui mais maintenant euh, euh le temps nit ñi les choses avancent en fait dafa am fu muy toll mhm. après tu laisses les gens composer pour toi parce que c'est ça <laughs> dégg non non non non euh, artiste il faut nga am ah, ouverture artiste il faut nga am ouverture aussi ngay accepter ñuy composer pour yow suñu papa Youssou Ndour ñu euh, mbëri secret bi loolu la il y a plusieurs chansons yoo xam ne il l'a fait c'est des grands compositeurs ñoo ko def et c'est mm-hmm. des grands paroliers qui l'ont écrit mm-hmm. donc du coup artiste il nga yaatal loolu mm-hmm. ngay bàyyi ñu lay composer di la bindal ñu lay defal son nga bañ lépp rek nga bëgg aaki mo sinon tu vas faire les les mêmes choses les mêmes mélodies et les bien sûr am nga duñ la jox rek nga lire Samira am liiral la nga lire au moins dañ ko non par exemple nga am idée bi parce que des fois mën nañ la tegal dara nga am ci inspiration comme léegi li ngay joué nii mhm. parce que son yi dafay méngoo ak paroles yi quoi dëgg la moo tax non non waaw parfois euh, di nga jox sa idée di nga joxe sa idée ñu ne boo ko defoon lii de mooy gën mhm. donc après soo xool da ngay xam ne li ñu wax aussi mooy dëgg euh, naa indi samay parole mais ñoom man mënuma bind à pour cent donc ñoom ñoo may rectifier ni ma lii fa boo ko waxee lii c'est bien mais du du dañuy jël lépp aaki moo ko travail d'équipe la su ma koy def ndeysaan ñëpp dañuy toog kii ni defal lii kii ni defal la et loolu man j'aime bien j'aime beaucoup quand on partage les choses waaw vraiment ñu ngi lay féliciter ah team Weekend Stars yëpp ñu ngi lay féliciter merci beaucoup ñu may waa koñ bi samay xarit waaw waaw waaw waaw mañu ko mañu ko tuuti rek man je t'aime je t'aime je t'aime am ah, ndax naan la benn rek waaw may ko ko tuuti rek topp rek bi ma la xamee ba léegi sama àdduna dafa neex eh. bi ma la xamee ba léegi fu ma jëmoo la nga yóbbu ma te li ci gën a neex mooy. li ci gën a neex. li ci gën a neex mooy. waa koñ bi. sumay xarit. ak suñu waa kër. ñu ne leen léegi dama am yaram. tey ci leer la. te bu seetloo bi ñu xamante ni teewul dañu bëggante. tos nag yaa ngi bëgg a ëppal de. je t'aime je t'aime je macha allah macha allah moo mën a way moo a way jongama mm-hmm. plaisir la woon en tout cas ñu accueillir la ci li nga xamante ne mooy Weekend Stars mm-hmm. ah, ñëpp di la seetaan euh, Papa Youssou Ndour aussi di la seetaan ñëpp nangul la aussi euh, sa talent mm-hmm. donc dañ lay bàyyi juste nga wax ñu li nga xamante ne mooy sa projet parce que clip bi moom macha allah xam nañ ne à partir de là Mirma ñëwaat na du yomb daal waaw bi mooy sama déjà sama troisième clip bu ma defagum ndax defoon naa fi euh, mbëggeel def fi si la mbégte ñëw donc si topp incha allah et di remercier waa kër gi ñëpp samay samay samay xarit lañ. ku si mel ni papa Youssou man sama idole la. je l'aime beaucoup depuis toute petite donc <laughs> ay wayam je l'écoute toute petite donc je suis bercée par ses mélodies. et Bouba nekk ku baax di mm-hmm. nuyu Ndiaga aussi c'est c'est un frère. Ngoné Ngoné Abidou Ibou ñoom ñëpp yàgg nañ ma yóbbu tournée. mais ànd ak ñoom donc voilà et je je remercier et je vous remercie encore si invitation bi di remercier tout le staff ñoo may accompagner muy mm. waa Rock Team surtout mm. Job sa Brain ak Taf Zayn maa ngi leen di remercier surtout ñi nga xamante ne ñoom tamit dañoo jàpp si liggéey bi muy Bamo Vision mi ñoom Babacar donc ñoom dañ may jàppale bu baax maa ngi leen di remercier ba mu Vision di leen wax chapeau à vous et que la euh, koy waxee lan continue sax le combat continue. Et que le travail continue. Le, le travail continue, c'est ça. Euh, excuse-moi Sana, oui. euh, est-ce qu'il y a des perspectives avec euh, certains artistes au Sénégal yaa ngi waaj. ay duo avec ouais. des, des des artistes. bien sûr ñu ngi siy xalaat nag mais mm-hmm. xamaguñu kan exactement. Okay. parce que parfois euh, artiste bi dina bëgg mais manager wala producteur bi mën na xaw a hésiter mais là ñu ngi xalaat pour def ko mais. def naa benn boo xamante war na génn muy ak job sa brain mhm. mais ñu ngi xool ay yeneen feature yi ñoo xamante ne ñu ngi def waaye euh, lu artiste yi lu artiste yi compliqué compliqué euh, Myrma euh, boo amee jafe-jafe contactel ma ñaar ñi lu la jaaxal ci artiste yi contactel ma PNG dinañ la ko toppatoo bu baax sama Instagram Myrma musique sama sama Facebook Myrma MYLMA. numéro bi tey ñu sama téléphone ma daal di joxe ndax jàpp dinañ la ko joxe léegi kon message ko rek benn yoon waaw. la woon vraiment ñu dalal la ci li nga xamante ni mooy Weekend Stars ndax nee naa leen daanaan bu nekk dina fi jaar ah. koo xamante ne vraiment bëgg na dëkkam te mi ngi bay waaram muy mag muy xale vraiment dina fi jaar ñun ñëpp ji su ko defee ñu daal di jàll ci keneen rek. ñu jàll si mu mel Mr Cash ah. Mr Cash Mr Cash. ay parce que waa Modou Lo dafa war a bëre dimanche pour ñu yëngal fii tuuti. ani waa PA ani waa PA. PA ay mës nag. yow eh, lu waay ren di sa loxo lay naaj. Mr Cash in the building kaay. taxawal noonu anticipé ko rek benn nuyu kaana xam nga fii ay non nuyu. waaw waaw waaw man nuyu kaana rek nañu benn freestyle eh, ah. rek. ay wala boog. yow koy takk pour tàll kon jabar pour lan la si yéen influenceur yi ngeen yeete kon rab bi lan la si yéen. yow ñi ëpp dunk ci yéen ñooy jëm a buddi say laaf buñ sañoon wala da ngay dee. mënuma tàkk seen kaw mënuma tapet ay nit musuma dàkk may daw police yi musuma tapel waaw bugguma dal seen kaw eh, fii seen leen waaye bugguma dal seen kaw tànk eh, rappeur ne ko fële buy fay teg saako lu ngoom ay eh, wéradi wéradi wéradi ay dikkee di nga fàttali dëkk ñu dikkee génne ñu dikkee di dikkee dikkee te dàgg ñu dikkee dañuy dem bu kuñ kenn bu ñu la woowee gars dañuy ay malamay timat génneel bon ay boobu laay kutaa gën leen bon bi bëri ay pétas si biir génn yamul si biir génn yamul tëjee yoon bi bàyyi ko doon jaay pare tere la bës dañuy teg mu sar pare ñu tere la bës ba tëjoon sa gàtt fi kenn la gën fi kenn la fët di fët fa ñu génne la gën ne ko biir bu baax bi lay doon itu bëri ñu it correct toog takka jabar nga takk ay bon di def tudd di fi tàkk seen xon sawat dañoo dof lu ñu wér ki yor sama tur dëgg mooy ki liggéey banque rab ne maa fi ah, euh, bien sûr euh, l'invité du team Weekend Star il est là qu'on ne présente plus bien sûr euh, Euh, merci d'avoir accepté l'invitation du team monsieur Kesh nuyu nañ la waaw fay naa leen salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp waaw fajar bi ñu nekk fi di rap nii waaw mais maa ngi maa ngi bëggee ñëpp di leen wax ne Mr Kesh la mhm. artiste rappeur from Parcelles Assainies from Mbour mhm. waaw maa ngi char ñëpp parcelle Mbour donc tu es de parcelle tu es de Mbour. waaw mais fan nga juddoo exactement. ak vrai parce que sànq kii laaj nañ ko Modou Lo ak kii mu jaar si yi dëgg. waaw bëggoon nañ xam artiste bi nga xamante ne tey moom <laughs> la ñu invité. dëgg ak santam quoi. waaw man man Mouhamed Falelu Mbacke Ndour laa tudd. barke alxuraan ragaloo. Mouhamed Falelu Mbacke Ndour. Mouhamed Falelu Mbacke. Ndour. Mhm. Mbacké. Ndour Ndour. ok pourquoi Mr Cash. mi fan la jógee loolu waaw. Mr Cash mën naa ne sama sama mag moo doon rap quoi. Ah, léegi ñoom seen groupe bi moo tuddoon Cash Flow. Cash Cash Flow. Cash Flow ñoom cash flow à l'époque dañ doon wax mooy continuons l'argument de la société humaine en mm. favorisant les lyrics sur l'ouverture du web mais loolu c'était en 2012 temps maa ngi nekk booy ñoom laa doon suivre di gis euh, ñu defee rap affaire ba affaire bi neex ma daal. donc ba ma commencé seen carrière ciul daal nga daal di téye flambeau bi jubal voilà ba ma commencé di rap waxuma damay dem wëri leneen quoi dama jël loolu rek ma jël kees continuer euh, voilà dama continuer mm-hmm. benn benn affaire bu gars yi ay nit commencé woon rek. et ça fait combien temps yaa si game bi yaa ngi si milieu hip bi. waaw ça ça doit faire bi war na def ay sept temps sept ans. voilà parce que depuis deux mille depuis deux mille seize laa jël sama carrière en. mais mai en mai quoi mm-hmm. bàyyi lépp lu ma doon def ne damay rab mais 2019 laa commencé def teg ko nopp def ko si norme yi quoi comme normal ni ko gars yi war a defee. laa koy doog a commencé di teg si yoon. tu as commencé solo ou bien tu as avec un groupe. waaw ouais, j'ai commencé solo amoon naa benn group mais mosuñu am son quoi. Mm-hmm. ay freestyle lañ doon def affaire yooyu mais deux lañu woon. waaw ma commencé solo après ma dem moom mbuur la nekkoon si ba ma ñëwee fii donc man kese la woon. Uh-huh. ma commencé waat ko di ko di ko lijjanti daal. ok donc euh, Master Cash ñu ñëw si li nga xamante ne moom nga indil euh, Sénégalais yi génnee nga ñaari single ñaari clip yoo xamante ne ñëpp a ngi koy waxtaanee moom lañ seetaan euh, léegi nii lu si mel ne lu waaye ren ñu gis si ay mbër ñi nga xamante ne ñoo ngi léewtoo foofu combat bu ngan moo ngi am dimanche nga jógee parcelle. dama lay laaj d'abord kan ngay supporter lan ngay wax si combat bi avant ñu ñëw ci clip bi quoi. waaw lu may wax si combat bi man aw ma lu ma wax si combat bi sax. si mhm. roi bi laay wax quoi. waaw <clears throat> dama koy wax déjà na ko téye rek na téye bi na dem jëli lu moom ñëw non fokorti moo ko fa am de moo ko fa am na ko dem jël waaw ah, suba lay leer direct sur la mais moo ko fa am na ko dem jël ah. mhm, parce que xam naa len de ah. Modou du du neexul neexul ñebewu kenn. ok donc monsieur Kesh nga bokkoon si groupe Akatsuki ngeen nekkoon plus de cinq six personnes donc euh, tout récemment week-end passé na nañ leen fii léegi nga choisir voilà donc euh, euh, nga choisir def carrière solo tout d'abord le le pourquoi nga def carrière solo génn si si si groupe bi tey. waaw genre damay commencer si waaw wax ne du woon groupe en fait mm-hmm. collectif la woon rek. dañoo boole woon di def benn projet pour euh, génnee benn album boo xamante ne voilà day mel ni genre ay booy yu dajaloo dëkk benn koñ. boole voilà sélection la. sélection bi war a dem benn euh, tournoi quoi. voilà mais dajale wuñ suñu bopp dañ ñoo dajale. voilà comme ça tey ñun cinq ñi TFM moo ñu fi boole. mais tey bu nekkoon yow ak Pii kese yéenay tànn ñu ngeen defal émission. amaana du doon man du doon tos du doon du doon noo tudd. je comprends fii mooy Choupa Dupa. Choupa Choupa enchanté Choupa Dupa. Oh, comprendre nga dañ ñoo tànn ñu si benn projet. projet bu waroon def deux ans génn. Mhm. voilà après. ay affaire am si ba ma mujjee jëlaat sama yoon mais musul nekk question de groupe quoi maa ngi woon ah, sama carrière solo di job en parallèle ak mais dara ñaawul quoi seen diggante euh, waaw dara ah tosh nee na waxal nañu fi lu nekk lan lañu wax dañuy sànnante ay track de booy fi lañ nekk ñu naan leen dañuy clashante de ñu naan leen pourquoi gisatuñu Mr Cash ñu naan ñu kan mooy kan mooy Mr 15 ñun nee nañ ko xamatuñ te te te ñun ñëpp xam nañu yéen <laughs> yéen a am solo te loolu yéen ñëpp xam ngeen ko. waaw ah loolu yéen ñëpp xam ngeen ko. waaw ñun ñëpp xam nañ ko waaw boobu noonu am ci diggante bi nii nii nii ci benn abs de temps. non animosité. wa wa lii yéen ngi waxante lu ne ci internet. non non non ku nekk day classe. mais dafa war a fayu sax album bi. fii lañ la ko waxee woon ñëwaat nga fii. dégg naa sa album sama album ban. waaw dégg naa ko <laughs> dégg naa ci ay track naa ci ay sànni ak donc euh, kees suñ ah jógee ah, foofu non ci bàyyi mu tontu foofu après ñu génn fa. fan laay tontu si tontu waaye. ñoom ngaa ko beleen rek ñëpp amul ak ñoom jàmm. ñëpp lay sànni ah, rapport bu. terrible kon man ku ma xam-xam ne rapport bu yaru laa. mais naa si rapport yi gën a yaru si Sénégal. waaw <laughs> loolu moom ayca <laughs> ñu ñëw si dans l'immédiat am na benn projet boo xamante ne sénégalais yëpp a ngi koy waajal si mel ni le 23 décembre. ah mhm. donc ñu gis la si affiche yi mu nekk événement boo xamante ne waa Sénégal Vision ñoo ko teg. ñu nar a dem voilà euh, ba Dakar Arena. la fekk nga bokk si ça te fait quoi d'abord ak ah, mën nga ñu wax si projet bi ak concert boobu dakaar Arena le 23 décembre question yaa si biir. le 23 décembre donc Rap Galsen mooy dem Dakar Arena pour ñu comprendre lul quoi. Mhm. du question da ay daa am ñu teg projet affaire yooyu noonu. Mhm. c' est une première quoi. Mhm. pour salle bu toll noonu. ñu jël ko fii nii. pour Rap Galsen bi c' est une première. mais est ce que donc ma bokk si day nekk day nekk fierté donc voilà. ñoo ngi yéen a ngi natt enjeu bés bi Dakar Arena Rap Galsen war fa loolu laa lay xam défi fi mu toll parce que Youssou Ndour kese moo ko mos a tëgg. waaw 5 kilomètres d'embouteillage. 1er janvier. mu fees dell ñëpp naan fii Bercy la wala fii Dakar wala lu mu demee nii. tey jii après loolu. rappeurs yi ñooy les premières yi fa war a dellu est natt ngeen enjeu bu baax est communication bi ci war a déglu. waaw waaw man natt naa enjeu bi. Uh-huh. yow xam nga enjeu bi. mais sénégalais yi comprendre guñ ko peut être. Mm-hmm. c'est-à-dire mais voilà dinaa leen ko expliquer muy que. du question de ay boy yu rap wala benn grand moo teg projet wala affaire yooyu noonu rap galsen ci boppam mooy def mooy teg benn pas en avant te il faut que nit yi jàpp si en fait c'est juste ça. souvent on avait l'habitude de vous voir ay grand théâtre wala wala yenn salles loolu gars réussir nañ ko def nañ ko quoi loolu gars yi jéngu nañ ko donc bu nekkee dañuy dem ay arena uh-huh. donc il il faudra que ñu communiquer si bu baax ñu wax si bu baax gars yi yëg ko xam uh-huh. mu nekk loo xamante ne voilà du doon du doon du doon affaire rap Galsen affaire day doon affaire sénégalais yëpp parce que ay xale yu jéngu la ak euh, voilà benn affaire buy avancé quoi li ñu naan mouvement. mooy luy avancé quoi loo xam day move voilà. langal maag est-ce que duñ ko seetaan comme ça ñu xool euh, sénégalais tamit foofu suñu langalee maag lan nga leen di <laughs> d'accord voilà langal maag si c'est bon bien sûr. kees lay doon. def si def si nank nank booy def si. def si def si naak naak naak def si def si naak waaw naka ma folle ñu ngeen di fal naka ma folle ñu ngeen di fal naka ma folle ñu ngeen di fal carrière ñu ma sóor si lalu hôpital bu bi këpp gaaw du ko wéy te fees booy géej bi day aalu ay nit dafay dee yi li nga fay jaadu wala nga fay géej ay birig si kirib yu ngaa xee di soos jaay nga sa ngor it si bet bi tey dañ la seexlu tilim nga dann nga os diiru ñu mbagg benn féet fii tëjal sa gat ayca mi ngi noonu ah ñu ngi nekk ki nga xamante ni mooy Mister Cash ah sénégalais yëpp ràññee ko vraiment muy def liggéey bu nice man xamal ni maa ngi lay di lay bàyyi xel. sa fan sa la lay sa fan sa waaye wax nga ñu programme yi aussi wax nga ñu événement yi. le 23 décembre la Dakar Arena lay xewee. Mhm. hip hop garçon yëpp foofu. te man kenn laa rek si ñu war a dem foofu. mais mhm. bon bokk naa si mur porteur projet bi. Mhm. comprend nga comme ñoo xamante ne voilà ils doivent en parler quoi même bu ñu ko buggee bu ñu ko bëggul du ma signer contrat juste pour dem jouer ñu fay ma kese mais damay fexe pour projet boobu noonu mu réussir waa parcelle ñoo ngi fa waa Mbour ñoo fa incha allah waa parcelle ñu ngi fa waaw waa parcelle yëpp maa ngi waaye di nga aussi sa mbokk artistes yi maa ngi woo sama mbokk artistes yëpp ñu nekk si game bi ñu nekkul tamit si game bi yëpp maa ngi ah. woo ñu nekk si mbalax bi maa ngi woo parce que fête la quoi le 23 décembre fête la ñëpp ñun ñëpp mën nañ dem fête absolument mais après le 23 yenn euh, écoles yi dañ la bëgg comme ay prestations yu ndaw est-ce que mën nañ am sa numéro manager oui comme ça gars yi ku soxla master question ah 44 834. 834. waaw Malick jox la 334. waaw 48 34. 34 mais concert bi gars yi dañ ne euh, ki nga xamante ne moo ëpp mbooloo moo ëpp public moo nar tëj concert yow en tant que artiste loolu naka nga koy dundee ak sa fans yi ak sa supporters yi ban est-ce que am nga yaakaar ne di nga yóbbu benn mbooloo bu bu bu bu soxor boo xamante ne yéenay tëj concert bi. ah leen daal wax naa leen ko maa ngi ko doon wax gaa yi di ko caaxaanee ku yéex. doo place. ndax booy parcelle bu ñu excès day fees. Ah, en tout cas dinañ ci xam dara parce que xam naa ni du ñàkk PNG doxantu fa wala ki nga xamante ni mooy Toch. Mhm. donc plaisir la woon ñu ngi remercier bu baax a baax. et di la wax aussi bon courage. Ah, ji euh, ban daanaan la ñuy dalalaat. voilà donc euh, sans tarder on va accueillir jigéen lañ tëjee dogal goo léegi ñu dugalaat jigéen. ayca euh. euh, loolu mooy yoon. dañuy dem ba Thiès jëli benn diva sous le nom de Jo Jo Ja ba ñëwal ñëwal ñëwal Pape Samba nekk di enjoy li nga xamante ni mooy. son dafa bëri doole. waaw ah, mais nee na du baale. jaara nuyu nañu la say xëy soog a gis. fay naa leen bu baax a baax di leen remercier aussi si invitation euh, ça me fait plaisir. yaa ngi nuyu waa Thiès aussi xam naa ñu ngi lay seetaan. maa ngi nuyu waa Thiès di nuyu téléspectateurs yi di leen sant bu baax. Mm-hmm. Ah Pape Samba j'ai une question son bi moo la neex wala xale bi moo la neex c'est juste une question quoi. génnal ci loolu. Pape Samba sama goro la. sama goro la génnal ah, ci yow waaw ah yaa ngi ñu indi li nga xamante ni euh, neex na torop ci bi ma ko soog a jël ma la ciy félicité parce que daan naan nga euh, jàmbaar nga euh, vraiment chéri toch la gars yi di wax may loolu ma dinaa ko lijjanti après nga ah, indil li nga xamante ni mooy duma baale ah. mhm. lan moo tax duma baale waaw boo gisee duma baale waxin na rek mhm. koo gis day baale yàlla bi sàkk sax day baale mais terme la rek ah yow tës yow lan la. mais mais mais waxal ci kaw ñu dégg la. tës yow bàyyi ko tës bàyyi ko bàyyi jàmbur. jël sa temps. voilà léegi sa micro nga wax mun na neex. d'accord. donc euh, Dia euh, j'aimerais bien savoir euh, parce que gis naa Instagram ñu bindee Diarra bi avec J A 2 R A bëggoon naa xam exactement c'est c'est quoi ton ton vrai nom. Maam Diarra. Maam Diarra. Maam Diarra. ok ñu lay woowee Diarra. exactement. ok ñenn ñi naan ko kaati. <laughs> Diarra fan nga juddoo. Thiès. waa Thiès nga kon Thiès nga jógee ñëw Weekend Star. exactement. oh ça c'est magnifique hein. vraiment merci pour ce pour ce déplacement. si lointain comme ça. Mm-hmm. chapeau à toi hein. merci. alors on te félicite on t'encourage. ma ma première question est la suivante. qui t'a incité à devenir ce que tu es aujourd'hui kan moo la motiver. pour nga dugg ci game bi pour nga nekk une une star euh, bien sûr de la musique sénégalaise. bah je peux dire euh, ma propre personne parce que boo seetloo dama yàgg bëgg musique depuis toute petite ma participer Sen Petit Gallé loolu tamit mu wane lu bëri lu nekkoon ci man euh, côté woykat bi et tout. Ah, produit Sen Petit Gallé nga. exactement. ci Tata ne laa nekkoon de a à 2016. ba léegi sax booy seet maa ngi fa après ci la. kon non si ñëw ma fenn nag mais ba léegi maa ngi Prince Art si ñoom laa bokk. exactement. Ah, euh, Diarra vraiment man Duma Baale bi ni ma gisee clip bi nice na. Mhm. mais après Duma Baale bi on va s'attendre à si surprise yu bëri ah. parce que maa ngi leen. mosal rek <laughs> ma leen si mosalee ba dina neexati. ah mais kan nga ci nar a àndal wala affaire yooyu featuring yeeg yooyu. bah maa ngi préparé ay featuring yu bëri aussi ak surprise yu bëree bëri. kon ñu xaar ko. xaar leen ko. ay ca kon donc Diarra génne woon nga benn son dem Touba ñëpp a euh, euh, kontaanoon mm-hmm. rafetlu tamit son boobu noonu. bu doon son boo xam ne c'est religieux ñëpp di ko daan enjoy suñu daan dem Touba. tey nga génnee beneen facette ñëw ne du baale ñu gis fa clip bu nice ñii naan waaw Diarra xanaa da nga demoon voyage USA France Italie nga def fa ay 5 sa nice. sa top bag bi tamit. voilà voilà noo ko waajalee quoi ba tey Diarra New Look la ñuy wax quoi. non même boo seetloo defaree. Sénégal lañ defaree tenue yëpp benn jógewu ci extérieur fii lañ defaree tenue yëpp toutes les tenues. ñaata million nga dépensé touche parce que bu ñu xoolee tenue yi environnement yi. moto bi lépp ñaata million la. non waxal rek si amul modestie da ngay wax ñaata million nga ci mu def ci clipam def leen 15 millions. naa moom mais du ma wax ñaata la. parce que may tooñ. léegi nag jaar jaara lii dama la koy may. Issa Ciss. Mhm. mi ngi Facebook. Mhm. nee na macha allah très bien mu ngi baax jaara. kii nee na dafa baax te jaara mhm. euh, Issa Cissé mooy wax ba tey mhm. jaara macha allah kon xam nga ni ko yaa ngi ci xol Sénégal dëgg la donc dañ lay ñaanal ci simplement nga góorgóorlu mhm. musique yombul dëgg nga jógee mooy seen festival dëgg la am nga base bu dëgër boo xamante ne vraiment ñun suñu xel day daal waaye ñu ngi lay jaajëfal aussi merci beaucoup tey jii nii tey jii nii fan lañ mën a situer jaara parce que dañuy gis jaara muy way depuis xale mu dem ba si biir gis jaara mu dugg ci monde cinéma ci ah, def ah. liggéey bu am solo ma xam naa ci dara mu nekk actrice boo xamante ni incontournable talent beeg lépp mu ngi fii mm-hmm. tey jii buñ doon wax benn jaara nii fan nga gën a sentir sa bopp sur le monde artistique euh, wala tey jii la musique. si côté yëpp ah parce que man je suis polyvalente. du coup je suis actrice chanteuse top modèle ak lépp loo boole. si top top modèle. de. Ah waaw boo yoree sa boutique di jaay yére mën ngaa woo jaara mu ah, daal kon jaara yow xaalis yi yëpp nga bëgg a lekk da nga lekk xaalis yi ñoom théâtre kat yi lekk xaalis yi ñoom waykat yi. top modèle yi nga dem lekk seen xaalis yow may dara daal. yow ma la may dara te doo baale. Ah, au niveau de la musique qu'est-ce que tu embrasses fan lañ la mën a si ñoom <coughs> yi yaa ngi situer wala chez les rappeurs fan lañ mën a situer Diarra. man world music def lépp laay def. Mhm. on passe dans tout alors. ouais exactement carte bi ñu kon mën nañoo xaar nga defal ñu clip bi di def. <laughs> avant de partir est-ce qu'on peut sentir ta voix euh, sans pour autant ñu teg son wala clip ñu dégg nga jooyloo fi benn Samira wala Choupa. benn 30 secondes rek ñu ñu enjoy sa sa fàttaliku. d'accord su la neexee sax nga taxawaay bi sama cameraman bi wane waale seen seen. Ah, ngañ dem ak. wali ma njaay. wala làmb ji. moo fi ñëw rek. oui oui oui oui je pense. Euh, mhm. pour nga wax sénégalais kan moo jaar ci clip bi ndax clip bi rafet na torop. Chadik Chadik ah Chadik lay def yi garaaw nga Chadik. macha allah. <laughs> sa première le week-end star. waaw waaw ah, bi mooy première fois waaw. Ah, c'est super la première fois mais bés boo doonee nga ni star bu ñu fàtte d'accord bu ñu fàtte Samira. Soupa Pien du ma leen fàtte jamais du ma si fàtte c'est sûr et certain. duñu ma si fàtte dañ koy jël RFM sax si rajo bi. comme ça bu ko saaree comme ñu gën ko yaatal. incha allah merci merci et pas facile mais euh, reste avec nous le temps ñu daal di xool euh, ki nga xamante ni mooy Jules ah. voilà Jules Diop Pape Samba su baaxee. Pape Samba si c'est bon yow ndaanaan la ndaanaan à la batterie Jules Diop. musique bu neex ci Sénégal Jules Diop moo tëgg batterie ba kokan la ñu ne Jules Diop gars yi naan ko Souleymane ah mbokk yi koo tëggal mu ne artiste Sénégal yépp musique bu ngeen dégg batterie ba neex Jules Diop moo ne ci suuf Jules Diop nag la ñuy delloo njukkal artistes yi Sénégal yépp jug taxaw ne ñun ñëpp dañuy ñëw soraano ce sera ce vendredi 17 novembre Adja Kiné Lam jug taxaw Momo Dieng jug taxaw Pape Diouf jug taxaw Youssou Ndour jug taxaw Oumar Pène jug taxaw Baba Maal jug taxaw Ismaïla Lo ne ko Souleymane ndaanaan nga tous les autres chanteurs ñoom ñëpp ne dañuy ñëw le jour J loolu kañ la mbokk yi ce sera ce vendredi 17 novembre ca théâtre national Daniel Sorano invité du jour Baxaw et le Sicko Family Jules Diop koo ko tuddee mu ne madame Marième Sall première dame de la République du Sénégal monsieur Amadou Ba premier ministre monsieur Lat Diop ministre des sports monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr monsieur Doro Gueye monsieur Sala Bigué Ndiaye communicateur traditionnel monsieur Alassane Mbaye trio des VIP monsieur Cheikhou Gueye cinéaste monsieur Cheikhou Gueye alias Sanex cinéaste monsieur Pape Mademba Biteye directeur général de la Sénélec monsieur Ndiaga Ndour TFM Ibrahima Ndour Prince Art Serigne Abdourahmane Mbacké monsieur Gorgui Ba monsieur Amad Ba monsieur Malick Seck monsieur Maguette Sène maire de Malicounda directeur général du COUD monsieur Pape Samba Diop à la présidence monsieur Adama Bey directeur général de AB Corporation Matar Diop Soubatel monsieur Gaucher Salif transitaire madame le ministre Thérèse Faye Diouf mu ne Adja Kiné Lam Adja Fatou Guewel Madaba la chanteuse Nabou Diagne Salvador Ndeye Diallo Kër Massar Adja Gagne Seri Ndaw Rufisque Seynabou Bathily Déco Rassoul Adja Néné Fall boutique Ya Salam madame Diouf Ndeye Maguette Dieng Ndeye Babamba Thiam Adja Khadisi Chéri Momar Gueye Sokhna Aïdara madame Wali Seck madame Amy Arafat madame Koumba Diagne Mariste madame Faye Salimata madame Diouf bébé Bass chéri Pape Diouf Mame Khoudia Galas Couture Ndeye Si Ndiaye Liberté 5 Mame Diarra Diop Ouest Foire Penda Koulibaly chéri Moustapha Faye Fatou Gaye Diallo fay Faye borom cant gi madame Diop Adama Seck chéri Taïbou Diop madame Diop Diouldé chéri Mass Diop madame Diop Fatou chéri Ndeye Babacar Diop madame Diop Ngoné chéri Ali Diop monsieur Mamadou Diop grand tailleur amour madame Soumaré Awa Chéri Jules Soumaré Madame Ndiaye Fatou Diop Awa Ndaw Latifa Ami Sama. ayca kooku mooy ki nga xamante ni mooy Jules Diop ah nekk euh, batteur euh, artiste yu bari nag ah, ni ngeen koy gisee nii euh, daf leen di jàppale ci li nga xam ne mooy seen carrière waaye bien avant tout ça événement bi ñu indi lañ koy bàyyi mu nuyu ak sénégalais yi bonjour. bonjour Samira maa ngi lay nuyu di nuyu PMG sama gars yi ah. non Choupa di Choupa Dupa. Choupa Dupa <laughs> waaw. di leen nuyu Samira. Ah. di nuyu waa Sénégal di nuyu ahlu musique waaw naan leen maa ngi ziar ñëpp kontaan aussi ci invitation bi ci jaar pour waxtaanee programme bi. Mm-hmm. alors tey daf ñu indi le euh, PNJ daf ñu indi li nga xamante ne mooy benn spectacle bu mag ñu ko gisee nii donc mi ngi am le 17 novembre vraiment moom aussi ñu ràññeeku ci liggéey bu xarañ bu muy def. oui monsieur Jules comme ni ko Samira waxee alors pour beaucoup de personnes euh, que ça soit les mélomanes je veux dire les mélomanes les anciens ñi nga xamante ne tey xam nañ musique dëgg xam nañ kan mooy Jules Diop. mais tey y a y a certains de nos frères. Mhm. qui en ce moment c'est une première ñoom ñu gis. Euh, monsieur Jules euh, si émission PNJ émission jeune et tout tey bëggoon naa balaa ñuy ñëw si événement bi rek benn 30 secondes rek waaw tu vois nga nga sàcc si tuuti rek nga wax ñu qui est ce monsieur que PNJ Samira Toche et Chupa viennent d'inviter sur ce plateau voilà waaw waaw maa ngi kontaan ci lu euh, question bi maanaam euh, Jules moom benn taalibe la rek mu nekk ci milieu bi waaw di bay waar nekk fi nekkoon dans l'ombre nag donc j'ai toujours été dans l'ombre nangu moom fës ci caméra yi mhm. parce que li may def pour man nañ koy dégg di ko yëg mhm. mais xam nga comme li ñu wax rek lu jot yomb mhm. ci àdduna donc ñoo dem ba ay projet projet yi nag commencé ci événement euh, anniversaire bi après loolu am na leneen lu nekk ci ginnaaw muy school benn école bu ñu wax ak benn académie donc projet yooyu moo waral léegi il faut ñu ñëw ci plateau yi. il faut ñu jëm ci média yi commencé feeñ gars bu ñu daan dégg tur bi nii nañu dégg. ñu xam jëmm ji. mais euh, Sénégal macha allah li ma fi liggéey ak li ma fi liggéeyal bari nañu. mais yan artistes phares nga jot a liggéey bëggoon nañu xam si. kaw ah kilifa yi bu ci suuf. aussi ah, Youssou Ndour vous avez travaillé Youssou Ndour Aliou Mbaye Nder. Viviane Jaratou Mbaye Lim. Abdou Dité Pape Diouf. lim nga musique. artistes yi ndam yooyu yëpp nga leen di tëggal. waaw macha allah ñëpp jaar naa ci ñoom macha allah. Euh, Toch euh, batteur. Mhm. Euh, moom instrument bu tudd batterie. Mhm. batterie lay lay lay. mooy mooy ñi nekk ci ginnaaw naan kàkk. kàkk kàkk kàkk kàkk oui non tu as tout compris alors moom nag daf ñu indil vraiment comme je l'ai dit tantôt événement boo xamante ne. Mhm. mi ngi koy amal fi nga xamante ni mooy Sorano. Sorano mhm. si je ne euh, bi nekk le festival euh, de rythme nga ko tuddee on va s'attendre festival de rythme avant loolu dañu ko jàppoon le 6 octobre bi pour ñi nga xam ne yëgoon nañ ko donc mu am benn lu euh, fi yàlla suñu borom wàcce muy nattu tiis mhm. boo xam ne mu ngi sekk yàlla jële ko fi mu tombé woon le 5 mhm. man événement bi nekk la 6 donc fallait que ñu rapporté ko donc ba ay yeneen i jamono ñu jàppaatal ñu bés bi donc événement bi lu ko yëkkati mooy festival de rythme comme on dit. mara war ci rendre hommage à Habib Ndiaye benn batteur koo xam ne moo doon joué Ismaïla Lô te mujj décédé. donc euh, di ko ci rendre hommage. et puis voilà war a présenter tout ce qui pour première partie bi. Euh, bu weesoo loolu am na spectacle show en live. avec les musiciens. ku mel ni Omar Pène Youssou Ndour ba su suuf ba ci suma doom jële toog Bambali gars yi ñu ngi ci biir voilà donc mais festival de rythme quand on festival de mooy que man ci sabar laa jaar ma njëkk a joué sabar joué percussion yi avant may def jàngi école pour def batterie donc rythme yooyu nag laa bëgg mettre en valeur donc dinañu teg trois batteries ci kaw seen bi waaw dañu teg ak trois batteurs yu joué ak percu après percute nañ joué ak jëmbe après jëmbe waay mais grand bi ak ñi nga invité nii ñi war a ñëw batterie bi événement bi ni ko annoncé nii parce que xañ na Sorano dina fa xañ pourquoi pourquoi waaw mais Sorano euh, dafa nekk salle mythique seel salle la boo xam ni mm-hmm. ndaanaan yëpp kilifa yëpp fa donc mënoo tëb Sorano dem feneen te comme c'est une salle donc première édition ñu am ko. Mhm. pourquoi pas ñu dem Sorano. Mhm. et puis mag ñu fekk nu fa kilifa yi ñaanoon ñu dooleel ñu. incha à combien. ah l'entrée c'est à donc. waaw noonu dix mille <laughs> daal noonu lañ ko déroulé. Mhm. donc euh, festival rythme yi première partie. deuxième parti bi y a Baxaaw et le Family. ok mm. baxaaw waaw asako asako asako baxaaw bu Medina baxaaw bu Medina mm. voilà ñoom ñooy def deuxième partie bi mm. ak batterie yi aussi bu ñu génnee ci loolu peut-être def rendre hommage a Abim Ndiaye bi ma lay wax après nag live yi commencé nag les shows en live avec les musiciens grands ténors yi ba ci suuf y a Pape Diouf qui est l'acteur principal parce que moom comme moom laay liggéeyal. Hmm, man maa ah, chef waaw man maa chef d'orchestre génération consciente. voilà donc di nuyu Pape Diouf de passage moom mooy euh, voilà accueillir gars yi mën naa ne concert bi musiciens yëpp dañuy ñëw mais moom comme Pape il est fixe maanaam comme ni ma ko waxee yëfam la. dama daal ku ñëw fa nga may fekk. ku nangu partage ak man seen ma partage ak moom seen sa yëf la du ma toog mm-hmm. ku yëg seen dama yëg donc xam nga mm-hmm. xëccoo na ko daal ba won ñu daal moom yëfam la gàddu na ko et puis voilà j'invite tous les musiciens woo naa ñëpp mm-hmm. ñëpp naa leen carte ñi woo nañ leen par téléphone ñi par mail ñi par euh, message donc di leen xaar daal di xaar musiciens yi di xaar woykat yi di xaar suma xaritu instrumentiste yi parce que nag comme un instrumentiste moo ayee donc lag na gaa ñëw. ñu bokk seen tout le monde. waaw ñooñu dañuy ñëw. ñëppay ñëw mbay mise part. Mhm. Euh, euh, super étoile. Mhm. dafa am ay liens yoo xam ne. am na ñu ko te dina ñëw gàddu guitare am joué ci yeneen yeneen woykat ci kaw seen affaire Sénégal bi ñëppay ñëw du affaire Pape Diouf kese du affaire Jules mm-hmm. Sénégal le festival de rythme festival de rythme bu ñu paree ko déggee rek artistes yëpp dañu woy voilà donc euh, leen di woo le 17 novembre fële ca Sorano ah, ngeen war a ñëw assister ci li nga xamante ne mooy spectacle am bu ko Sénégal ñëpp ñëpp ñëpp gën a découvrir kan mooy Jules parce que dafay baax ci nit ki buy mm-hmm. dund ñu koy rendre hommage. Mhm. gis naa ci affiche bi aussi mu def euh, pas mal de personnes. ñu ñëpp euh, nga leen di rendre moom ñu dégg aussi ci mu invité suñu directeur Ndiaga donc euh, dama leen di ñaan rek Jules Diop ñi mhm. ngeen dem ci spectacle parce que vraiment dina neex je le sais. moom Ndiaga moom j'ai pas les mots pour moom. sama DG parce que Ndiaga daf ma sax surprendre ci événement bi. Mhm. parce que bi ñu ko njëkkee jàpp le 6 dañ ko jàpp ñu def réunion fii ak moom ak man ak sumay mënuma Jules affaire bi yow bugguma nga am ci kàddu yow bëgg nga dem tëdd nga nelaw ñoo la assisté maay def lépp non du assistant c'est lui qui a tout fait mhm. même la sono sono bi ñu jàppee bay installé dañu gàddu sono bi ak background tout le matériel vraiment yow bul expliqué yow dama bëgg nga toog sa kër rek mhm. lépp nice mhm. vraiment émission yi aussi mu woo Khadija ba bii nii démb lañ ma woo donc Ndiaga war na ma ne c'est c'est il a toujours été un frère pour man te ba léegi taxawul pour ne ma dina ma jox cent francs donc lépp lu ñu wax rek mu ne ma booy tuer de la maison yow. yow ñëwal defal li rek. donc je parle moom pour moom. te yow DJ am na li ngeen war a def suba gars la loolu day ñëw maa ngi DJ dañuy dañuy am bagage. donc xam nga. ma koy ma koy ñaanal. yàlla defal ko jàmm. guddal fanam. yokk wër sëgam ak mën-mënam. yàlla bàyyi leen ak moom. yàlla gën a yaatal seen liggéey parce que nag nit ku baax buy def lu baax rek nañ ko ñaanal gudd fan. dëgg la dëgg la dëgg bañ a vraiment waaw remercier waa ci plateau te il le fait naturellement waaw ça naturellement c'est notre directeur sans rien euh, Jules vraiment ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal aussi sa événement bi nga am ci réussite totale plaisir la woon nag vraiment ñoo dañu war a dem suñu directeur suñu directeur dafa bokk ñëpp ay ñëw waaw ñu ngi noonu yéen ñëpp da ngeen ñëw yéen ñëpp xam naa ni xam naa ni njaga balaa boobu nañu indi ticket wu staff bi incha allah voilà donc euh, di remercier bu fekkee ne jeex na ma remercier gars yi. remercier sama staff ah. bi di remercier sama manager. kooku moom su ma soxna la Awa Souleymane. macha allah voilà donc di remercier Ahmed Mbaye Mbaye Karim. di remercier Djibi Dioum. di remercier Aline Diaw di remercier Ndiaga Gueye euh, parce que di remercier Maguette Seye parce que ñoom ñoo nekk ci staff bi di liggéey man. Mm-hmm. Euh, di remercier aussi kenn koo xam ne sore ci man aussi. son benn mu ñu koy wax Tafa mu nekk conseiller technique ministre Abdou Karim Fofana waaw di remercier Doro Gueye Doro Gueye moom sama remerciement waaw sama remerciement ci moom bu jeex waaw di remercier euh, Pape Diouf ñi nga xam ne mm-hmm. tous les musiciens sénégalais donc waaw maa ngi remercier ñëpp boo ko lim rek da ngay waaw di woo ñëpp nag parce bés yombul. maa ngi woo ñëpp di leen xaar pour ñu partager scène bi. Mm-hmm. et écrire mi vraiment kafoore yaatal ko wane li xam nga xam ne moom la fa yàlla def. incha allah ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax plaisir la woon ñu dalal la ci Weekend Stars. waaye ji euh, comme temps bi mi ñuy commencé ah. foofu am na benn ndaanaan bu des. on a seen Bambali. tey dañoo bëri ay ndaanaan. Bambali seen Bambali mi wax namu naa la ñun tam namu nañ ko donc Pape Samba su baaxee ñu dem xool clip. acca Bambali. man ak eh, sa ex mënul yem waaw namu naa la namu naa la tat samu naan noon sama rawee mbëggeel jeex mbëggeel sax man dama soof et puis loo ci gagné bu dee danga doon waa koñ bi ne nañ dama doon xarit àndandoo ñëpp dañ ma oof

Aïcha bienvenue à lui ci li nga xamante ne mooy euh, plateau Week-end Stars plaisir la ñu dalal ko fii mu nekk un jeune euh, talentueux ñu koy wax le général de Faramareen c'est ça non <laughs> nuyu nañ la Bambaly waaw maa ngi leen di fay voilà maa ngi leen di fay bu baax a baax di nuyu téléspectateurs yi mm-hmm. ak ñi nga xamante ne mooy internet yi di leen sant bu baax nag di la xamal ne ah. balaa dara di tàmbali je vous préviens dama doon jouer démb bi ma jógee soirée ma xam ne su ma nelawee du ma yeewu. kon da nga enchaîné traversé ma toog suma gars yi di enchaîné ba léegi ma ñëw. lépp nag pour nga xamante ne respect bi ma am ci yéen. kon ñu servir la. <laughs> ak ñi nga xamante ne ñooy téléspectateurs yi soppe yi nga xamante ne ñoo ñu def nii tey. Eh, ah. kon maa moom lii moom Adja Wessel moo koy defar. bu ma kontaan bu baax nag ah, ci dalal bi ngeen ma dalal tey Samira ah su may frères yu yàgg yoo xamante ne du tey. ñu yàgg maa jàppale suma carrière na ah. parce que bi may soo ko génnee samay produits ñoo ma doon jël di ma yóbbu ci Fosco yi. xam nga tosh ma mhm. koy bëggee di ko suivre moom tamit. xam nga di bëggee suma nattaangoo yi fi jot a jàll. Mhm. ah ku ci mel ni suma père. Euh, Jules. Ah, di ziar tamit suma frère euh, Mohamed mbay mhm. waa di ziar ñëpp ba ci suma staff bi nga xamante ne moom laa àndal. te ko ci loxoy The Best Production suma producteur. jërëjëf. en euh, kontaan nañ euh, ci ki nga lim léegi muy euh, the best. Mhm. parce que liggéey bu am solo bi mu def ci Bambaly Seck Sénégal gi yëpp rafetlu nañ ko ñu ah. ñun ñëpp clip bi vraiment bi ñu ko gisee man dama am coup te je te l'ai dit. Mhm. bi mooy sama son. <laughs> vraiment vraiment dañ koy dañ koy accepté. parce que mélodie rythme lépp dafa dafa dafa révolutionné wu. Mhm. ah bon waaw da nga révolutionné les choses fii. ah taxale naa ko rek moom. Bambaly man je respect je te parce que Samira artiste. artistes yëpp dañuy tëgg guddi donc tey teel a yeewu artiste dafa métti moo tax suñu émission bi dafa sensible mhm. pourquoi parce que émission la boo xamante ne dañu soxla artistes te artistes yëpp dañuy jouer le soir mhm. donc tey artiste bu fi ñëw rek c' parce que c' est sacrifié mhm. donc sànq wax na lu important vendredi dama doon tëgg nelaw ma toog uniquement pour vous faire plaisir pour faire donc je chapeau di wax gars yi nañu gën a dooleel nañu gën a respecté tamit artistes yi parce bu ndaw la rek ah. après gars yi mën nañ ci Bambali Seck soo ko déggee rek sa xel day dem si Wally Seck. c'est quoi relation de Bambali Seck ak la famille Seck Wally. vous êtes des tur bi moo demee noonu rek. Emma Ndiaye tout le monde bëggoon naa nga leeral loolu balaa ñuy avancer. waaw tout d'abord dañuy sant yàlla may nuyu suma famille ah. mm-hmm. euh, yaakaar naa ñun ñi ñëpp ci plateau bi. ba ñu juddoo ba léegi ñu ngi dégg Thione Seck Mapenda Seck. Mm-hmm. Ousmane Seck. Ousmane Seck. Keba Seck Assane Ndiaye. te tey ku xam Thione Seck xam ne moom Mapenda sekk ñoo bokk ndey ak baay Papa Thione jur Waly Balago Seck mm-hmm. Mapenda Seck jur Bambali Seck mm-hmm. noonu la demee xam nga ba tax na man depuis bi ma commencé sama carrière ku ma gis rek mm-hmm. ah mais attends mais kii man bizarrement bii kii comme Waly non mais kii lii nii. c'est tout à fait normal. bi sax c'est tout à fait normal. parce que mën naa ne deret la ñoo bokk benn deret. sant ma jaxumpa sekk laa sant. c'est tout à fait normal ba tax na xam nga deret la rek. et puis même deret la ay wax yu sew. waaw loolu mënut a ñàkk mais même budul dara Babacar jaar na ne ah ma Ndiaye jaar na yàlla tere eh, ma Ndiaye génn jooy fii ni waa di jàppalewul ay raxam ah. loolu lépp am na fii Bambali lépp am na fii waaw tas yow moom bu ma xamoon ne yaa ngi ci plateau bi du ma ñëw <laughs> ay wax yu sew kii mais damay rebondir par contre parce que comme ko waxee sànq man je dirais plutôt da ngay gis xamante ne par exemple Choupa ma nekk rakam ma nekk magam mhm. Choupa di roy man ba di roy ci man ni may waxee samay gestuelle man loolu laa gis ne euh, loolu nga jël ci Wally Seck mhm. man mhm. balaa may woy balaa may woy laa gën a am problème bi may jàng école Notre-Dame du Liban ci am sax gel yoo xamante ne moom xam naa ne sax jot nañoo doon samay gel Ah. mais ñooñu. dañu ma xamal carrément ne waale tax. boobu. waale bi sax amul doole noonu ñu ngi naan doomu Thione Seck bi doomu Thione Seck bi. mën nag jamono jooju buñ may niróo leeg waale. Euh, waale nga waale nga baal ma rek. Mm. mais temps yooyu moom. gerte xot la doon niróo. taay maa ko dàqoon. <laughs> Mhm. ñu naan ma da ngay niroog waal yi mais man dama doon wax ma ne mais kii maa ko dàq gën a. boobu maa ngi jàng école. Mhm. man depuis bi ma nekkee xale ba bi may màgg avant may way. Mhm. dañ ma doon wax mu mel ne ñu mu ngi mel ne Thione Seck la jur. ndeysaan fa laay ñëw ndax yàgg na balaa may way la. fa laay ñëw nii man fa laa bëgg ñëw dëkk sax. parce que ah. Bambaye dañ koy suivre ci TikTok bi. kii di famille Faramareen ne par force icône bi muy Thione Seck. Hmm. ñu gis yi bari na ñi ko doon bari nañ mais ñëpp dañoo d'accord ni la voix de Bambaly moo doon ki nga xamante moo di Thione Seck dañ lay suivre ci TikTok bi nga ñuy may ay extrait yu neex a neex a neex a nga mais mënul ñàkk nga may ñu dara tey ci Thione Seck balaa. non attends ah, loolu mënul ñàkk. bugguma bugguma demande damay jooy. dama leen di wartal billahi waa xoolal sama sama baat dafa kase. naa ko. dégg naa ko. na gisee di mare ma wan la ginnaaw. mu def lan. nga yàq sama der du jaar dara. ndeysaan. loo fekke woo di wax ñaaw. ak lan. amma ba mu baari lool tey ko sa ginnaaw. bàyyi leen di bàkkaar. واخلل أنوار sama bi dama kase. barke alxuraan bi yow doy. macha allah parce que jugee gaynde démb. dëbb ko ba mu daal di ñëw fii daal di ñuy. su arabee métti. Bambali man si clip bi laay ñëw ah, si clip bi parce que avant clip bi di génn gis nañ bande annonce bi nga siy mm. wane. Mm. Euh, la euh, Big Mama gars yi waaw waaw. mariage sikk ngi noonu Big Mama sikk la. ñoom ñaar dañuy génn. ah nu mu fa demee le choix le choix de Big Mama ba pare yow nga nga nekk lu ndaw ndaw tamit euh, maanaam tuuti quoi nga <laughs> dem tànn si loo xamante ne poids lourd la quoi. <laughs> choix boobu nu mu fa dee. man li ma moromu tos yi dañu bëgg lu kii di ji. <laughs> ni ma ni ma ni ma tuutee laa rëy. barke alxuraan. eh yàlla du la xañ lépp ah. ni ma tuutee laa rëy. yàlla du la xañ lépp. xam nga lay tuuti. dafa am loo xamante ne. Mhm. man bu ma bëggoon rëy damay rëy. billaay wala. fii ku fi bëgg rek xam nga yoon bi ngay jaar. <laughs> Eh, dëgg la non dañu wante dëgg rek. dëgg la man Bambaly je me sens à l'aise mm. ak ñi ma mel nii. yaa ngi ne da ngay xaru quoi dafay nga dugg si. waaye déggoo ma dama ne la ni ma tuutee noonu laa rëy wax laa la wax. dégg dégg la la. foofu laa yem. ayca a est à 3 minutes de la fin de l'émission Samira. quels sont les projets de de de notre frère Bambali 3 minutes moo ñu dese bëggoon nañ gën a yaatal. moom xam naa si rajo bi lay doon euh, fële RFM ak mm. ING. mais bëggoon nañ tey xam sa programme dans l'immédiat dans le futur c'est quoi tes projets. et surtout félicité ko ci li nga xamante ne mooy clip bu namm naa la bi. parce que yow namm naa la yow bu ma yëgoon. su kon dama la ci may dédicace la ciy wane. ndeysaan mais incha allah am na yeneen yi ñëw. bon tout d' abord euh, damay kontaan bu baax ci dalal bi. Mhm. Euh, vraiment duré wul mais am naa lu ma neex. le xam nga mais di la xamal ne projet yi ñëw. doon na loo xamante ne non stop la Bambaly amatul taxawaay maanaam di taxaw di xaar. Mhm. parce que tout récemment euh, génne naa benn single war ko def clip mais dama koy bàyyi. semaine bi passé laa génne single mais dama koy bàyyi. Hmm? dafa am beneen bu gën a tàng ay namm naa la yooyu yëpp nga wax. di ko gën a tàng moom laay waaj a génne incha allah ce mois ci. ok super. mois bii incha bu génnee. dañoo bëgg spécial weekend star boo xamante ne dañuy ñëw. pousse table yeeg yëpp ñu samp orchestre bi 100 pour cent live bambali benn suggestion tamit. ngi xaar benn copie boo xam ne booy coon sekk nga ñuy may rek. defal ñu ko benn pàcc boo xam nga. waaw koy xaar loolu daf may neex tey ngeen fexe ba programme ko ma tagal leen orchestre jaru muy bëri. Mhm. barke alxuraan quelques instruments. Hmm? ñu waxtaanee ko. Eh, dañ koy def xam nga. waaw kay maa koy teg ci loxo Samira ak PNJ. Toch. Hmm. yaa ngi ci biir ba tax na euh, projet yi tamit maa ngi waajal benn événement bu mag. Mhm. xam nga boobu ba léegi gisuñu Bambaly ci biir saal. Mhm. boobu ba léegi ñu naan Bambaly lu tax demoo Grand Théâtre mhm. Bambaly lu tax demoo Sorano wala dara des civilisations presque def naa huit ans de carrière mhm. te yaakaar naa boobu ba léegi man sama jëmmi bopp ñu ngi apprécier mais amaguma lu ma bëgg du ma apprécier sama bopp ndax amaguma lu ma bëgg am na loo génnee génneegul waaye nag maa ngi waajal événement te du ma ko defee biir saal déedéet. décembre lay doon. stade lay doon. saal saal dafay tuuti. stade doo ñu jox saal dafay tuuti balaa euh, balaa ma leen jox exclusivité dina fekk benn single euh, single bu bees bi di génn ak clip bi dina ñëw yaatal ci. ma jox leen endroit bi. date beeg lépp. ayca super. merci ci kattanu yàlla. numéro de ton manager pour euh, da ngay jël 77. oui. 810. 810. 83. oui. 98. merci beaucoup. merci beaucoup Bamba di kontaan bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. man dama lay remercier euh, te nga xam ne aussi maa ngi xaar benn affaire bu spéciale. Mm-hmm. mooy euh, ki nga xamante ne mooy sa référence di Wally Seck. Mm-hmm. ngeen def benn duo bu extraordinaire loolu man dama ko gis. ah Wally kat moom boobu ba léegi dama xamul lay xaar ah. moom. moom. vraiment na benn ak ma Ndiaye kay man maa ci des. waaw ayca loolu lu ma la nekk la mais seen live bi aussi ñu ah. koy gis ah. ah live bi sa kii yow rek lay topp. ah live bi sa waay koy wàcce. mais bambali yow tas la nga naan bul a génn. dafa mën tas moo bëgg ambiance mais li nga wax xam naa dañ koy def indi fi orchestre neexal ko ba mu neex en tout cas plaisir vraiment. ñu woo la nga bàyyi lépp vraiment nga demoon tëgg lépp mu métti torop mm. nga daal di traversé ñëw fi nga xamante ni mooy Week-End Stars amuñu sa fay. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërë ngeen jëf yàlla seen jàmm yàgg te j'espère que d'ici peu dinañ jàkkaarloowaat. incha allah mu gën a yaatu. yàlla na yàlla defal jàmm. amiin lépp lu nekk seen xol yéen a ko xam yàlla na ko yàlla defal mm-hmm. mais may jégalu nag parce que nuyu ma borom kër gi. Mhm. muy suñu bàyyi ñun ñëpp. Mhm. di référence fii ci musique sénégalaise. maa ngi ziar ñëpp. Mhm. soppe yi yéen a tax ñu mel nii. yéen a tax ñu egg si fii. maa leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. ku ñëw bi dafa rafet. bon tenue bi solo design moo ko ñëw benn oyof la ma suwet ma solo ma. daal daal da nga tëmbal lekk. tëmbal lépp lépp la tëmbal. merci merci merci vraiment merci euh, euh, xool aussi li nga xamante ne suñu yaay Adja Vaisselle def na ko fi ndax nee naa leen chaque samedi mu tegal ñu ay vaisselle yoo xamante ne Bamba li xam nga ne lii mosoo koo gis. Ah, lii mosoo koo gis fenn ak soo ñu mënee wanaale li nga xamante ni Adja Vaisselle def na ko ci suñu yaay boobu waaye aussi di big ki nga xamante ne mooy Yacine suñu maquilleuse ah, maa ngi koy bëggee bu baax a baax euh, ñu xool euh, li nga xamante ni moom la ñu Adja Bessel indil tey ci samedi bi parce que téléspectateurs yi ñu koy xaaral. Ah. Ah, pourquoi pas. waaye kontaan naa merci beaucoup kooku mooy suñu yaay Adja Wessel ñu koy jaajëfal nee naa leen chaque samedi matin nii lay def ak ñu ah c'est un amour ma koy jaajëfal bu baax a baax 77 723 32 32 loolu mooy numéro bu baax bi mu ngi nekk fële nga xamante ni mooy jëppal Derklé bu ngeen ko woowee rek incha allah dina leen jaay ba pare daal di leen di jox notice. Euh, team bi nag xam ngeen ne weekend bi moom foog ñu tàggoo donc merci euh, euh, à tout le monde alors a habillé PNJ au 77 680 52 71 On vous donne la diva Adyouza au King Fat Palace, bien sûr, présenter son new album. Merci à tout le monde. Excellente, euh, bien sûr, week-end à, à tous. Et bonne fête de tous. Et encore une fois, à la communauté chrétienne, le 1er novembre, ñu defuñu émission. Mm-hmm. raison pour laquelle Toussaint la woon moo tax euh, ñëwuñu woon télé donc euh, bonne fête par prolongation à tout le monde. waaw tey rek euh, di gërëm euh, ki ma sañseel muy c'est mon ami c'est frère ça fait deux semaines ngi temps yi la may may ay xàppati yaa ma gën a xam xam nga dafa tàng il fait chaud euh, c'est mu ngi la c'est mon frère ah mooy ki nekk ci arrêt mère Thiaba Soro ah, mon jeune frère mo artiste la mais en même temps day def ñëw yu rafet numéro bi c'est wax ci ngelaw bi am ah. maa ngi fi gaawal <laughs> c'est la TFM dañ la koy taxal ngay dox. da ngay def 77 243 65 32 77 243 65 32 merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Toch. rafet na di rapidement. voilà rapidement donc merci beaucoup à vous tous mi yaa gisee tamit euh, génn na continent mu ngeen ko seetaan via YouTube voilà exclusivité yi bëri na donc prochainement di ngeen am ay xoolal ay naanaan fii. dans weekend Sofia Galamour jëppal. c'est toi yaa merci beaucoup la team Weekend Stars merci également euh, les techniciens les hommes de l'ombre maa ngi leen di jaajëfal tey mënuma lim parce que temps bi dafa xat mais jaajëfal naa leen bu baax a baax di leen wax merci merci merci di leen souhaiter tout simplement de passer un très bon week-end di souhaiter bon anniversaire à ma grande sœur Mounas Koulibaly. bye. lim